divorce wala euh, ki nga xamante ni moom mooy Miss Ndiaye dafa euh, quitté domicile am domicile conjugal am ci ki nga xam ne moom mooy Aziz ginnaaw ba mu takkee ki nga xam ne moom mooy Aïssa Rassoul dem ak moom li ñu demeyal photo yi nga xamante ni ñu ngi ko doon publier ñu bari nee nañ moom moo merloo ki nga xam ne moom mooy Miss Ndiaye ba mu dem coow li bari na jumboor yi boobaak léegi mais gis nañ ki nga xam ne moom mooy agis Aziz ay Aïssa Rassoul tamit réagirul ba tey ñu ngi continuer di publier li nga xamante ni moom mooy yooyu les Euh, euh, vidéo ak ay euh, photo tey wax ji bari ñu nekk ku ne naan Aziz Ndiaye li mu def waru ko woon defee parce que mag la waru woon topp xale bi ci li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggam tey yow loolu ban gis-gis wala ban jàngat nga ci am. xam nga man lan laa siy wax dama koy répété sax gis nga jabaru soxna Aziz Ndiaye bi nga xam ni mooy aawam te mu génn àdduna maam Binta liñ ko doon waxal si dëj bi ndekete lépp dëgg la. seede yu rafet lañ ko seedeel euh, euh, miis lu tax bi mu fekk see maam Binta maam Binta deful ni miis def lu tax defu ko kon miis ku baax la xoola euh, neel miis Njaay moom dafa jël relève te nit ki soo ko remplacé da ngaa war a mel ni moom am na wala amul réseaux sociaux yi ay TikTok yëpp bëreewul ndax Aziz Ndiaye bi ñu ko déggee ci ay waxam nee na ba mu koy takk en 2007 xaw ma 2008 est-ce que bii ni mu fësee ak bii ampleur bi mu am moom bosam amoon na loolu. waa mais xam ma wax la dara euh, tey lan moo tax li wër Aziz Ndiaye yëpp ne Aziz ba mu koy takk teral na ko de moom bu dee ba mu koy takk teralu ko nii nii ci gis-gis ci bët. teral nañ ko parce que Miss wax dëgg yàlla macha allah yaa ngi dégg ni mel nii ni mu mel nii ku ñu teralul doo ko mel mais ku tuuti ku tuuti doyul euh, lépp du la doy ba pare dama gis benn wax boo xam ne mënoon naa tax sax miis euh, gën a regle xool lu muy def quoi bu dee li bu dee li ñu wax am na dañ ne doomu Aziz Ndiaye ñoo ne bi seen yaay génnee àdduna ba tey miis moo leen yor manqué wuñ dara xanaa am la woon nga gérer njabootu nit ku génn àdduna amul solo de nga gérer seen baay moo ko ëpp solo parce que saa boo xasee xotti seen suturas baay mu xotteeku jarul yow nga leen di gérer am na wala amut ba pare aawo nday la war a nekk yaay aawo yaay lay nekk du nekk jabar mais aawo bu nekkee jabar rek musiba am. Ah, da ngaa d'accord ci Aziz Ndiaye li nga xamante ni mi ngi koy def. waaw waaw parce que tey jii yow Bintu soo amul jëkkër nii yaa ngi dégg xam nga amoo jëkkër léegi bu ñu toogoon nii ñu koy rek ni am nga jëkkër. lislaam nangu na ñu fësal sa amuk jëkkër ba ñi la bëggoon yépp génnee seen yaakaar ci yow mais dama lay wax benn affaire am na ñu am na ñu mag Aziz Ndiaye fuuf ñu nekk ci dëkk bi duma tudd seen tur dañoo dem ut gel ëmbal gel bi ba gel bi am doom ñu indil ko seen jabar seeni jabar yor ko te kenn yëgut est-ce que Aziz dafa ëmbal kenn ëmbalul kenn de am na ñu ko mag fuuf ñooy doxal auberge yi guddi bëccëg ñu ngi fay dugal seen moroomu doom yi di tëdde am na wala amut du dëgg te Aziz defu ko yaa ngi dégg mosoo ko gis ci daray ñàkk fayda ndax ànd ak sa jabar dafa dafa ñàkk fayda da cee nekk te yàlla gërëm ko lu yàlla gërëm moom la ñuy song nii di jéem a daaneel loolu mooy sëy yàlla da ko daf ko gërëm Aziz su ko neexee mu fësal ko du gelam am na ci droit wax dëgg yàlla différence d'âge bi nga xamante ni am na seen diggante ñu bëri ne Aziz maanaam euh, waroon na sóor li nga xam ne moom mooy ay doomam itam parce que tey bu ñu xoolee ay atu xale bi at doomam méngoo nañ wala ay doomam sax mag ki nga xam ne moom mooy Aïssa Rassoul mënoon na sóor sóor doomam yi waaw léegi dam lay laaj benn affaire ki nga simmeeku mu simmeeku euh, euh, am na am na différence d'âge ah léegi ban âge ngeen bëgg yéen âge daa am foofu dëkk bi ba dëkk bi daj koo fi wan jigéen bu mag mu ne du ko takk mag ñëpp a lamb am na wala amut da ngay may nit jigéen sax mu naan ndax xale la am na wala xale la ñuy takk mag kenn du ko takk Aziz Ndiaye ak ay Rassoul amul benn différence dafa am ñoo xam ne pour man dañoo noonu woon Aziz lu tax waxu ŋaaññu ñu woon bee ñëw bëgg a ŋaaññ bi am na wala amut nga ne no défendre ma ko xaw ko guddi xaw ma ko bëccëg musuma ko teg bët mais dama ni sëy dëgg li mu def mii xam est-ce que xam nga Aziz li mu def nii dafa ma neex xam nga ndax lan bu doon mag ñi nga xam ne du ñu doyal jigéen buñ la takkee ba pare am na ñoo xam ne bëgguñu ñu yëg ko yaa ngi dégg duñ ko wane ba mën a doxaani keneen mais dafa wane ñëpp ni Aïssa Gningue Aïssa Gningue la nopp pour dool ni ñëpp bàyyi nañ kook Aïssa ñi ko bëggoon xam naa ni te bëgguñu bëgguñu woon mu romb leen seen xol jeex amuñu luñ ci teg loolu moo tax ñu génne polémique différence de Aziz Aziz lii muy def waru ko doomam nii naa doomu Aziz doomu Aziz la Aziz Aziz la ku am sa jabar da ko war a wane wax dëgg yàlla am na wala amut waaw loolu mooy affaire bi mais man gisuma ci benn benn affaire boo xam ne nii nekk na ci man gisuma ko wax dëgg yàlla gisuma ko de ki nga xam ne moom oustaz Modou gis nañ ko mu def sortie moom tam euh, euh, yëkkati ci ay kàddu yoo xamante ni xawul tegg na wax dem banaan Aziz dañuy acharné ci kawam euh, wax nit ñi dañoo ko teg bët ak genre yooyu noonu dem bay tudd ay fen ñu bëri ñaawlu ko ndax nee na ki nga xamante ni moom moom sax dëggal na nee na Miss Ndiaye bougé wu mu kër Aziz ba tey waaye ñu bëri ci li nga xamante ni noonu la communiqué en tant que kilifa d'accorduñ ko ba nga ko dégloo yow loolu ban aperçu nga ci def. xam nga Modou Fall moom bañ ko booleeg Pape Cheikh Diallo muy def émission. boobale ci oustaz ji rocceeku ah man man pour man Modou Fall man ah vraiment si rappeurs yi laa ko boole quoi wax dëgg yàlla non Modou Fall lan la waxal rek Modou Fall lan la non xam nga la yéen xam nga luy seen problème da ngeen di jékki-jékki tak dem gar jël garaatu jàmbur takal ko nit da ngeen koy def da ngeen di jékki-jékki nit diw nitu yàlla la te yàlla taxawul ne la sama nit la nga ne diw nitu diine la te yaa nitu diine yéen ay njiitu diine la njiitu diine mooy kan diw usaas la te diw moom lan mooy usaas xam nga luy usaas hmm? non yow mi ñëw fii naan diw usaas non waxuma ni moom du usaas de waxuma ni du usaas mais dama ni tey jii boo ñëwoon ni Jimbori mii xam nga usaas la lan mooy usaas usaas dafa am ay norme xam nga tey usaas dafa war a tegu ci ligne boo xam ni ku baax mbokkam nga ku bon mbokkam nga la fait que nit ki di am féete rek yaa ngi dégg kooku nekkatul usaas li ma laaj léegi du usaas moo ko wax kuy waxal xaritam mooy wax loolu am na wala amut da nga ciy ak man comprend ngi li mu la wax kon Aziz nit ñi di wax ci Aziz Aziz li mu def daal neex na yàlla mais pas pour ko xam ni day waaraate pour nit ñi dégg ko parce que xam nga Oustaz Modou Fall euh, yéen a ñëw ni Oustaz Modou Fall xam ah, nga Oustaz Modou Fall bu njëkk ba li ma xamoon dañ daan boole oustaz ñaari oustaz oustaz bi di ko laaj ay masala muy tontu ci masala mais yéen oustaz yi ngeen di wax ñu wax si masala ay masala la ñuy wax man kay oustaz boo xam ne nii dañ laa tànnal Pape Cheikh Diallo Pape Cheikh Diallo dafa xam masala yi waxal tiim la di la laaj di di laaj lu ko neex ngay ngay jukki ci arxuraan di ci wax lu la neex loolu laa gis de waxa rek am na wala amut bu doon man maay moom te damay doxal rôle oustaz ànd ak Pape Cheikh baax na de parce que Pape euh, mbalax bi mu nekk dem na ba dégg ci daal yi dama naan leen ah kii kat sama xarit la mais est-ce que doo leen ma indil ko jàng ni man waxal rek mais tey boo seetee gel yi mer yëpp oustaz euh, kooku la ñuy esati tontul ma samay noonu loolu laa gis de. wax dëgg yàlla mais naan da ngeen di daal ci kaw Aziz ak affaire yooyu loolu du waxam moom lan la am droit mu indi aaya buy setal Aziz mais amul droit wax comme directement man loolu mooy oustaz quoi mais li nga ne oustaz ma ne la oustaz du waxee noonu oustaz chaque jour bu fekkee dara yàqu day indi aaya bi ne yàlla mu ne nangam ak nangam ak nangam ba pare yéen da ngeen am benn problème dem nañ diine am na ñu bëri ñuñ ci takkal ay garaat arxuraan waxi jàmbur la jarul tiitaru mun nga sol silib sax ñëw wax ko loo wax Muhammad a ko wax est lu tax est xam nga lu tax arxuraan du xeew yi xam nga ko ma wax la ko te ñu si bëri si ñoom boo na ko laajee duñ la ko wax arxuraan junj la ñu mujjee ñëw ku mujjee ñëw yaa koy gën a dégg ñu fi nekkoon parce que yàlla moo njëkk wax ni sama nitu tey gàcceel na sama nitu demb léegi niti tay yi nga xam ne nee nañ diine moo leen tax di wax kan ak kan la bu ma la ko laajoon doo ko wax ba pare tey ma wax la benn affaire ma ma wax la tey euh, sàmm kuy sàmm boo ko doon jox tey ba di ko dimbale lan nga koy jox waaw sàmmkat loo koy jox ay nag imaam tey boo ko doon jox loo koy jox du jàkka yéen dangeen ngeen jël jàkka yi imaam yi jox leen nag yi jël sàmm yi jox leen jàkka yi ah mais mooy comme ni ngeen di def nii rek parce que léeg-léeg yéen damay gis ni ñi ngeen di gën a déglu yéen ñooñu xamuñu dara ay nit la yu nelaw ba yow jaar ci benn sawaaj yi naka la tuddati ah euh, élage ne ko dimbali ma ci benn jasineer jaar ci waaj yi ne ko dimbali ma ci ay dàll mu dimbale ko ci ay dàll mu solu ba ni juggu ñëw toog ni këmm si chaise bi tari benn aaya te léegi aaya boo tari nit ñi daanu ndax ñàkk jàng gi kenn jàngul am na ñoo xam ne seen aay yëpp fóot la mais li tax aaya yi di saf sàpp ci ñun mooy ñàkk jàng mais jàngale diine am na loo xam ne ci diine waruñu ko woon jàngal kenn fii ci réew mi ndax maam alaaji Malick ak sëriñ Touba ñooñu dañu dañoo décentraliser diine ba nga xam ni daara xoola senegal da ngay judd rek mën loo xam ne beneen réew bala mu ko mën dem arab noonu la réew mi daan doxee fii dañ daan toog daan ni ku képp ku mënul faatiha naa feq la sénégalais ngay gis mu juddu rek mën faatiha yeneen réew yi dañ lay yóbbu école nga doog a mën faatiha faatiha yi léegi dañoo dem ba ay ponkal ay ministre di tari ay aaya di gàtt loolu moo lay wan ni diine mi ngi arrière yaa ngi dégg te gis nga am na benn rikil boo xam ne bu ko diine rikilee yaa ngi dégg seen dëkk bii si boppam kenn dootu ko mën a régler lu leer laa la wax oustaz yu bëri fii man téyewu ma leen oustaz ci rappeurs yi laa leen boole d'accord ci ni oustaz waxee. dama ni vrai oustaz bu fekkee askan réer fàttali leen mooy aaya lay njëkk tari ba pare firil la ko du du du ko du aaya du concerné Aziz keneen kuy wax day day naan yàlla de bu lii xewee lii la wax. mais oustaz boo xam ne day ñëw jël position oustaz boo xam ne danga dem pale ñu jox la fanweeri mètre yi jox la fa xaalis ak yooyu ngay ñëw di wax ngeen ñëw tuddee ko oustaz mais bu leen yàq deru oustaz yu quoi. oustaz duñu ñëw ko tuddee euh, Bintu euh, journaliste la ak journaliste la ban moo la gënal. Hmm? déedéet boo ne xoola yàlla gis nga baaraam bi gis nga ko nii daf ko bind nii. xam nga lu tax pour boo ko delloo sa bopp rek mu rëq sa ndigg dafa bëgg nga joxoñ ko ne ko yàlla yow la da ngay xaar yow tamit gis nga joxoñ bi jëm ci yow bu ma ko doon joxoñ sama bopp gis nga sama loxo bi ni muy mettee sa joxoñ la ñuy xaar ci man yow yaa war a wax Jimbori mii vrai influenceur la mais ma naan la man influenceur la loolu amul sens waxal rek oustaz yow yaa nit ñi ñooy toog ba ni diw oustaz laa yaa ngi dégg parce que grade yi xam nga xam la euh, quatre-vingt-dix-neuf turu euh, euh, yàlla yi ay borom xam-xam ñoo ko ko tuddee xam nga loolu benn tur rek la am yaay toog ba mu yàgg daal ni kii daal mooy jàmbaar kii daal mooy mooy kaamil kii daal mooy noonu lañ def ba tur yu bëri ñëw léegi-léegi da ngay gis nit nekk ci dëkk bi am tur yu bëri xam nga lu tax kenn ku nekkal nam ko sentiree ci boppam ci njàmbaar noonu la ko tudde mais da ngeen di gis ay nit ñëw rek solu ba jekk daamina bi xaw a ndróog daamina oustaz yu njëkk ya ngeen kii xam nga sénégalais dafa mën a àtte lu mu xamul naan kii vrai oustaz la rek mu tari waxee nu la arrangé rek nga kii am na fi waykat boo xam ne bi mu duggee si nguur gi ba tey ay waayam dafa xeewi dama la jël repère pour nga mën a xam li ma la wax Youssou Ndour fu mu mës a toll day way jàmm ji ñu amoon ci biir àll bi rëbbkat yi sox fetalam ñëw di ko rey fu mu toll nii way loo ko bi mu nekkee ci nguur gi ñemewu ko woon way bu ko wayee sax day tiit dafa ni ñee dañ naan ko ah man ngay gaaruwaali usaas yi buñ toogee ci tànt ba pare léegi bu njëkk ba seen koñ nagu jàkka yi kan moo ko doon jënd du paa léegi nagu jàkka yëpp politiciens yee koy jënd moo tax bu ñu toogee di tudd ay nit fii daal pour gën laa xamal ay affaire oustaz diine diine daal dafa xaw a dafa xaw a gàddaay te ñi ko dese ñemewu ñoo wax bu ñu waxee ñu saaga leen loolu la quoi oui oui waaw man moom du ma wax pour faral kenn damay wax rek ngir yàlla tax wala ngay xool lu ma nit jox ak lu ma dul jox ku man daal duma fu sama xalaat laay wax. jimboor yi ñu taxul ngay gaaruwaale di def ay affaire xam nga xëy na tamit émission gaaruwaale bi lay indiwaan noon rek pour jox leen ko noonu.